ñoo gis naa euh, la jeune fille là Zeyna la xaw ma nu mu tudd. Jeyna Jeyna. waaw Jeyna ñu revue de presse. ah Jeyna Balde. xam nga lu mu de déedéet am daal lu journaux yi bind. naa dafa yëg doon génn ak benn booy xaw day rap ma booy ah. ko sant Faal. mooy mooy Bril Bril Bril. Bril daanaka kër ndaw waa ji la dëkkoon daanaka. moom kan Jeyna. waaw mu yor caabi Jeyna yor caabi. Mhm. jii naa jël euh, xaar ba guddi jot. Mhm. waa ji di nelaw. mu wax frère boobu nga xam ne ñu moo àndoon ak kii bi ñuy filmer grand bi yor euh, grand Diop. Mhm. grand frère am bi mu dudd. Alpha xawma Ali Balde wala Ali waaw mhm. ànd ak beneen xaritam. ñëw ñu sàcc ñaari téléphone iPhone Pro Max waa ji. caabi oto Chrysler xam nga yóbbu ko mu wàcc jox ko frèram bi wowu frèram bi dem yéen naa ñëwaat tëdd di nelaw waa ji yeewu gis ni sàcc nañ ko te daajuwuñu bunt tojuñu dara waa ji xëy suba ñi ndaw si ni ko man sax sama portable dañ koo sàccaale moom moom jey naa hmm. waa ji dem jëndal ko téléphone mais porté gul woon plaint xam nga fan nag ko waa ji porté plainte hmm. dafa jékki-jékki di jot ay mënaas jey naa ak freeram boobu hmm. dañoo jël ay tigo plus plusu plus tigo fri mm-hmm. mm-hmm. def ko ci téléphone mbindaan ma mbindaanu jëy naa jëy naa ñaari mbindaan la mais kenn ka jël téléphone am def ci puce bi commencé ñuy chantage waa ci portable waa ji dafa am ay vidéo waa ji yu co nekk mm-hmm. ak yeneen i xale yi jigéen te nañ nañ vidéo yeen na mu demee naka su tegganuwul daal ñu jël vidéo yooyu nag di ko yónnee waa yi di ko ci chantage naan ko soo ñu defalul lii dañuy publier vidéo yi di ko ci chantage di ko ci chantage ba waa ji porté plainte hmm. bi waa porte porté nag bi ñu toppee enquête bi Dieyna dañuy dañoo sàccaale téléphone am mais ñoo gis ni Dieyna mi ngi woote téléphone ci téléphone am. ñu hmm, koy utiliser daal. ñu ngi koy utiliser. bi mu ne dañ koo sàcc. di bi mu ne ci càcc gi la bokk. Hmm. voilà ci biir ay enquête ñu dem ba cuisé ne ko nii carrément mu daal di avoué que ni moom moo def loolu. loolu nag am na lu ci nit ñi war a jàngat. moo tax sama xel day ñaaw ca la xewoon bu ñu arrêté tuuti xamu la xam naa ba jéenaa ak frère bi ñoo def lii waa ji jéenaa ak frère bi ñoo amoon problème ak Diop Iseg li ci def nag da ngay bàyyi nit ñi ñu xalaatal seen bopp xool foofu ak yoon affaire yi ni naka lay mujje mais jéynaa ak kii nga xam ne moo ko yóbbu ñoom ñaar ñoo bokkoon dëkk ci benn kër ku ne yor caabi faram la woon daal mm-hmm. li ci gën a garaaw mm-hmm. waa ji am ay vidéo yu am solo yu nekk ci YouTube bi mm-hmm. ay day defe naa ah, ah, am na ci ah. boo xam ne am na ay trois millions et ñoom dañoo dem ba supprimer yooyu vidéo ci bi xam nga kon waa ji il perd beaucoup d'argent ci loolu ay vidéo clip yu nekkoon ci internet bi man waa ji xaw ma ko il pare ku xale yi jigéen ñi bëgg la ko ko ko kii la daal gis naa ni daal liñ ko yàqal ci kii bari na. mais lii ma la wax nii noonee la demee. en tout cas mi ngi gàkkal deram ah. mooy booy rappeurs yi bees rafet yooyu rek. mi ngi ngeen topp leen waaw xale yi voilà. mi ngi mi ngi mi ngi gàkkal deram moom Dieyna Baldé. Mhm. parce que yow munoo fi def mbir nit ña nekk ca di lijjantee ka waxtaan ñu lay déggaat ci leneen. Mhm. sa à ay mbokkam nañu ko jël. Ah. yar ko encadré ko. Ndakaaru ndey soppi nit de. waaw euh, mais bari nañu fi yàgg te soppeeku ñu. Ah, mais mais cest à xale bu toll noonu à son âge. bu mu dugg génn ci duggaat ci beneen. Mm-hmm. soit ñaar rek mën mm-hmm. mu jël yoonu baax ñu boole ko ci ñi baax. baa mu jul yoonu bon ñu pare ci moom mais xale bu ndaw à son âge coow loo dugg mhm. génn ci duggaat ci leneen mhm. bu tayee nga ne sama moroom bàyyi ma violé suba nga ne sama moroom maa ma ëmbal gannaaw suba nga ne dama ko damay concubine ak benn rappeur gannaawaat suba ñu ne ma nga ñu garde à vue à la doo xam sax lu muy niru mhm. na ko ay mbokkam jël yar ko encadré parce que lii ñu koy tudd bu dee lu am la rafetul bu dee lu amul la rafetul mm-hmm. xale bu ndaw mm-hmm. di jigéen mm-hmm. war a cest à war a war a am sa euh, taxawaay bu war am ci société bi ñu war a mën a compter ci yow nga am tur am ci loo yëngu bul gàkkal sab der dañ ko encadré mi ngi yàq boppam de ay parents yoo teel a jóg na parce que amul tax hmm? âge bi mu âge bi mu toll hmm. bay ñëw Dakar dafa di fi maanaam dëkk ci appartement moom kese di dund yéen dund yi hmm. ay parents ñoo responsable moom de mais bari na ci réew mi xale yoo xam ne ñoo gën a responsable seeni parents souvent ah, su souvent dina leen di xalaas boo da ngay jàpp sa gémmiñ ah, ah, réew mi daal jàppati jàppati mais bii man de dëkk bi waaru nañ ko nañ ko appartement yi war nañoo def immeuble bu ne benn alkaati taxaw fa immeuble yi ci réew mi. war nañoo immeuble bu ne naa xaw ma de. dakk der yi war na leen a yokk immeuble bu ne Sénégal rek war nañoo jël benn gendarme wala benn policier teg ci bunt bi. Ndiaye waa ji li ko dal ca dëkk boole. waa ji waa ji dafay wax ci frère am moo nekk ci kaso bi. waaw frère am. Baat est mën ngaa mën mën nga mën nga ñoo may jàmm ñun. ah dëgg laay wax rek dëkk bi. nee naa non mën nga ñoo may jàmm dem Ndiaye.